mbokk yeeg internet yi amati nañ mbégte ànd ak yéen bu baax seen émission bi lay ñu di fee xalima gu ñëw xam ne du dox ci lu dul dam wëri ñi nga xamante ni seen xalima dafa ñëw tey nag am na ku nga xam ne dañ ko ràññee bu baax ndax xalimaam bu ñëw ay waxtaanam ak xam-xam sell bi nga xamante ni moom lay partage ak jaamu yàlla yi moo tax ñu tànn ko ñëw seet si ko tey ngir waxtaan ak yéen ba nga xamante ni dinañ mën a wasaare li nga xam ne moom la yor tey ñu koy jaarale ci xarala yu bees yi suñu gan tey mu ngi tudd Cheikh Hady Deme borom Lijaaba Cheikh yi ñu bàyyi la rek nga nuyoog mbokk internet yi laataa ñoo dugg ci waxtaan bi. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala xalqilaa seydina wa mawlana muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëñ toog ñu ngi lay nuyu di nuyu ñu nga àndal di nuyu mbooloo mi ñuy déglu di leen ñaanal yàlla tamit bisimilah. jërëjëf euh, si nuyoo sàll yu tedd yooyu Cheikh Hadi Deme euh, mu ngi fii ci Wakam Cheikh bi euh, li may gaaw rek damay laaj tur bi borom lijaaba oh. lan moo indi tur bi. waaw ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax. Mm-hmm. di si julli ci yonent yàlla moo sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. di di di wax tamit di ñaanal seen sëriñ seen bunt seen yàlla seen naan waaye ci faydu di ko ñaanal yàlla. Mm-hmm. yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér-gi-yaram. ndax. borom li jaaba ci moom la jóge mm-hmm. ndax ñun ay ndongo daara lañ mm-hmm. nekk ay nit yu xeebu mm-hmm. waaye nekk ci ay tànkam mu yar ñu ci yàlla tarbiyee ñu tarxee ñu jox ñu cër bu mag a mag ñu toog ci géew wasifa wasifa ba pare mbooloo mi yépp a ngi nekk ci wasifa bi mu ne ñëpp ñëw siyaare ko mu ne ma aadikaay ma ñëw mu ne ma yow danga may jox àddiyee ma warlul la ma làmb sama poos fekk benn cinq mille francs kese si nekk moo war koo joxe dépense mën mhm. na naa ko jox mhm. bàyyi bàyyi lépp ci loxo yàlla mhm. ma jox ko ko mu ne ma warlul naa na lijaaba waxoon ma la toog ci kurus ñaan yàlla sax waaye képp ku la diis soxla boo boo tàllee sa loxo ñaanal ko yàlla aajo bi faju na mbooloo mi kenn ku ci nekk na dem diis ko soxla mu ñaanal la ñu ngi sant yàlla ci loolu foofu la borom lijaaba jógee te nit ku baax nit ku màgg la moo tax fu ma toll dama koy tiitaloo di ko ñaanal yàlla bëgg-bëggam la ak baaxam. moo tax mu def loolu mu def si ñun daal. mais cheikh bi jamono ji léegi dafa bëri sëriñ yi xamante ni ñu ngi fii kenn ku si nekk nag li ma jaaxal mooy kenn ku si nekk da ngay fëgg sa dënn. waaw li ma am kenn amu ko lii ak lii ak lii ak lii ñuy wax loolu lan nga leen mën a wax. waaw loolu dama leen wax nañ delluwaat ci yàlla. Mm-hmm. parce que jaamu yàlla. dafa war jamono ji nekk muy delluwaat ci yàlla mhm. ndax kuñ naan man la du moom mhm. ku naan man la du moom mhm. ki naan yow la muy bañ kooku moom la te bëri na ñi nga xamante ni caméra da leen ni tiim rek ñuy wax naan mbir mi man la fu ma li ma yor ku ko am ay siru bi mënoo koo am nanga ma waxe kese la mhm. ndax ñoom fu ñu gëstoo amaana keneen naanee na fa te xamu ko mhm. te mbir mi du ci du ci wax waaye ci jëf la ndax ndax wax ji bëri na lool mhm. waaye wallaay bu pënd bi wuree dinañ xam kan ku nekk dina xam kan moom la mën ndax mbir mi du ci toog micro da kii la ah. ngay wax lu la neex dafa yomb lool waaye wallaay langi am na ñoo xamante ay kilifa yoo xamante dañu génn ci tele bi dañu ñëw ci man ma leen di ñaanal yàlla ñuy am ay aajo di ma ko sant ma leen koy fajal mhm. te loolu yëpp du du du du du du wax dara mhm. waaye dama koy sante yàlla moo tax mbir mi daal mhm. doomu aadama bu si nekk na delluwaat ci yàlla na delluwaat ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam na topp sunna te bañ a wax ne mbir mi man la mm. ndax ni nga def ba am ko noonu sa morom mën na def ba am ko mm. yàlla mi la ko jox mm. magasin mi du jeex mukk ndax yàlla magasin mi dafa fees uh-huh. dafa mel ni nga jël ci puso sànni ko ci ci ci géej lu mu wàññiwut géej gi munu ko wàññi yàlla kon yàlla mun na jox àdduna bi yépp mm-hmm. kenn ku ci nekk li nga soxla mm-hmm. te te du ko wàññi dara kon nañ delluwaat seen xel si yàlla xam ne li nga def ba am ko sa moroom def na lu ko raw ba mm-hmm. am lu ëpp loolu te mu ngi toog fu mu toog jàpp ñaam borom comme ni nekk ci eh, béy ba muy tax muy cëpp cëpp. mu mhm. ci nag mu ci nag te mu ne mu. <laughs> ne mag moom. Mhm. jërëjëf dañuy dugg rek euh, si l' essentiel Cheikh yow ku la xam-xam kemtaan yi nga xamante ni yaa ngi koy def si ñi nga xamante ni buntu dafa tëju ak ñi nga xamante ni dañuy yónte ay mbir mu mu dëgër Cheikh bi am na ay mbir yi nga xamante ni da koy def ci ubbeeku. ndax ba léegi yaa ngi continuer di jox gars ndax li nga leen ci jox dafa bëri. waa ñu ngi sant yàlla ci bu baax ci loolu noonu. Mhm. waaw man damay wax ne mbi képp ku nga xam ne dafa tëju. waaye nag nekkut ku nga xam ne dafa tëju tëdd di nelaw suba ngoon maanaam fi nga xam fu fu ker gi nekk rek maanaam mu rond ànd ak ker gi kooku noonu man su ñëwee ci man duma ko ñaan su ma xamee ne ci loolu la nekk du ma ko ñaanal yàlla mm. waaye képp ku nga xamante ni mu ngi yëngatu te wërsëgam maanaam affaire am dafa dëgër su ñëwee ci man dinaa dimbalante ak moom mm. te dimbalante bi yëpp damay wàkkeerul seen borom ñaanal ko yàlla mm. ndax ñu bëri dañu foog na da ngay bind rek jox nit ki mu dem ndax bëri na ñoo xam ne soo ñëwee ñu tàllale sa loxo rek nga ñaana leen yàlla ñu dem dañuy sikki sàkka mm. te wallaay lazim lu mel ni Cheikh Amadou Bamba ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahima ku mel ni Cheikh Omar Fouti mm-hmm. da nga daan ñëw ñu ñaana duñ sax kii da ngay wax ne leen damaa am soxla nangam rek ñu ne la wax baax na mm-hmm. baax na googu noonu rek faj na mbooleemu aajo mm-hmm. kon damay wax ne képp ku nga xamante ne ñaan ci yàlla ñaan ci sijaada moo gën a am ma xama foofu bind joxe ndax boobaa da nga koy def ak lijaaba ba pare da koy def ak xaal ba pare da ngay xam nag naka ngay ñaane si borom ak ban waxtu nga koy ñaan ak maanaam ajo bu si nekk waxtu yu nga ko nek ñaan yàlla nga ñaan ko yàlla yàlla faj aajo boobu mais mais léegi-léegi wala africain sax moom boo ko joxul mu takk mu sangu dafa mel ni day xaw a xeeb li nga koy def waaw day xeeb li nga ko jox waaye waaye waaye moo tax di nga defal dalal xelam maanaam bind jox ko waaye mm-hmm. amaana aajo bi koy saafara si si jaata gi la si si jaata gi la mm-hmm. ci si waxtu ñaan yàlla ndax ñaan yàlla nekkul bëccëg gi nga téye sa kurus allah allah lii lii déedéet mm-hmm. dafa am heure dafa am waxtu yoo xamante ni góor yàlla yëpp la ñuy yeewoo di ñaan yàlla nga xam siru bi ngay ñaanal yàlla xam soxla bi mu am nga ñaanal ko yàlla waaye damay wax ne kuy nelaw mënul ñaanal yàlla kuy nelaw te sëriñ si ñu bëri dañuy génn fii naan wax waxi ñaan yàlla waaye dañuy tëdd di nelaw ba jant bi so lekk seen ginaar lu jiital seen kon def lu leen neex te dañuy wax naan ay tànk amoo xaalis mënoo taal loolu wax kese la mm. sufiyanke yu mag yi dañ doon dëddu àdduna jox seen bopp lépp yàlla mm. te képp ku leen wax aajo sa aajo faju na te pour ñu am lekk bu lekk sax problème la ah. kon mbir mi du ci lijaa du ci ubbeeku du ci dara mm. waaye lijaaba la soo amee lijaaba da ngay jubóog seen borom da ngay méng maanaam lépp lu seen borom bëgg yow da nga ciy nekk kon lépp loo bëgg seen borom da ciy nekk mm-hmm. alors chef bi ponk boobu buñ ko génne ginnaaw bi nga xamante ni nit ubbeeku na mais yenn saa yi day lijjanti yenn saa yi mu lijjanti ay kayit yenn saa yi mu nekk bitim réew bëgg lijjanti ay kayit ubbeeku moom boo ko xasee def lu bëri mën na laa ubbeeku ndax boobaa it da ngeen di am lu ngeen di jëflante ak ñoom ci ay kii yu mel noonu waaw mbiru këyit dama waxoon ne ci waxati hmm. ndax yàlla chaque jour nga ciy wax dafa mel ne leneen la hmm. waaye yàlla am na loo xamante ni may nañu ko nekkul lu ñuy ndamoo ndax chaque jour sama téléphone bi bu ma la ko joxoon tey jii hmm. nga xool di ci gis loo xamante ni daf lay yéem am na ñoo xam sax def nañ ay vidéo yónnee ma waaye rafetul may jël ay nit di leen teg seeni waajur xool leen naan leen kii si nangam ak nangam loolu rafetul man du ma dundee noonu ndax man ne li may def dama koy waaye dama koy delloowaat suñu borom ndax yàlla dana wa in zakartum la azidannakum sa jamono ju nekk da ngay sant ma lay dolli kon lim ñu may nekkul dama koy puukare woo wala ma koy ndamoo waaye dama ciy dellu jamono ju nekk suñu borom mm-hmm. santaat ko ci pour mu may dolli jamono ju nekk ndax man dama nekk jàmm boo xamante ni damaa ubbi sama magasin yàlla nga xamante ni moom moom waxuma la magasin la waaye xaalam bi la yor pour mooy tubbal di ma jox mm-hmm. waaye képp ku nga ne am na jafe-jafe mm-hmm. lii dama koy wax ne la siru bu nga xamante ne maa ngi ko jëlee Daaru Salaam ñëpp xam nañ Daaru Salaam mu ngi nekk côté Nioro mm-hmm. ñëpp xam nañ ko ku xam nañ waa kër googu noonu si Alaaji Omar Ndaw moo ne moo jàngal maam maam bu góor sama moo jàngal sama waajur tamit bu góor génn àdduna maa ngi koy ñaanal fu nekk yàlla ndax fu jóge waaye xam-xam boobu maa ngi ko fa jëlee ma ne képp ku nga xamante ni kayit tëna ko mu soxla kayit lu ma koy ñaanal yàlla siru boobu noonu du ko wax ndax nit ñi léegi tàmm nañ loo xam loo wax rek ñu modifié ko wala yi ni yéen ñuy seetaan fii ci sunugal 24 point net ci émission bi ñu dippee xalima gu ñëw nee a jóg dem ni yàlla daf ñu ni Cheikh xam-xam bi nga xamante moom la leen yàlla ñu wasaare ko ci internet bi ba ñëpp mën ci jot ndax ñu jëriñu si moom mu ngi fii wakaam képp ko nga xamante ni bëgg nga jokkoo ak moom mën nga def 77 361 02 75 ba léegi nag cheikh bi dañuy xuus mais fii dañuy yegg ci ponk bu nga xamante ni xam naa internet yi dañuy ci bëgg a dégg ñu ngi dëgmal ay événement yu rëy Modou Lo Eumeu Sène foofu laay njëkkee bala maa dugg ci beneen bi Modou Lo Eumeu Sène lan la ci gis cheikh bi yàgg ngaa wax nag mu tasaare def bomb ci dëkk bi. Mhm. te kenn mënu ko wéddi ndax dañ ci teg seen bët. waaw loolu dama ci sant yàlla bu baax. ndax dañuy bëgg na chaque jour lu ñuy wax rek yàlla na ànd ak li nga xamante ni moom la yàlla di namm. dañuy ñaan yàlla tamit lépp luñ génn ba wax. yàlla moom safaanoog li nga xamante ni moom la yàlla bañ. moo tax dañuy dañuy topp ndigal bàyyi tere jamono ji nekk. waaye bu wax jotee ku noppi war baaxut. waaye tamit dinañ wax. waaye wax ji ñu wax dinañ am fu ñu ko teg. ndax jamono élection yi génn naa fi wax ñu laaj ma ci élection yi ma ne leen. surprise du ci am te noonu la ci surprise amutee. maanaam ñëpp xam nañ lu ci mujj am. laaj ma ci laaj nañ ma ci xalifa Sall man leen nit ñi dañuy wax rek léegi coow li fay Khalifa Sall barki Démo Ndiaye génn na te kaamil waat. te jullit nga ne jullit nga xam lan mooy kaamil alxuraan nga tiim ko waat ci yàlla. ragal yaakaar naa ne. ki nga xamante day wax lu dul dëgg amul sañ-sañe yàlla mayut ko fit bi nga xamante ni dana jël kaamil alxuraan teg ci loxoom ne day waat waat mooy Alioune la boobu noonu mm. te ma ko waxee teguñ ci ay fan mu mm. génn waat te coow li fi ne nii coow li ba ma ne coow li duñ ko déggati coow li fi ne nii commencé na féetoo boor mm. te maa wax tamit ci diggante combat Modou Lo ak ki nga laaj Euh, Eumeu Sène ak Eumeu Sène hmm. du am ci combat Modou Lo bi waaye dinaa wax ci combat Lac de Guiers ak hmm. Boy Niang hmm. lenn dinaa ko xamal ñi nga xamante ni ñu ngi may seetaan ñu bàyyi xel samay wax bu baax a baax Pikine ñaari mbër war nañ fa bëree muy Boy Niang muy Eumeu waaye li may wax lu leer nàññi ñi la te kenn mënu cee teg virgule benn victoire mooy am biir Pikine kon ñaari mbër yooyu kenn dina ci daan. benn victoire mooy am biir Pikine du ci wax kan la ñeneen ñi di jug pour defarwaat waaye li ma gis la te nit mënu cee tegg virgule lu dul yàlla te li ma wax incha allahu rabbi noonu lay amee. kon da nga bëgg a wax ne entre Lac de Guiers Boy Niang bu dee Boy Niang moom moo am victoire mu day daanu entre Boy Niang ak Lac de bu dee Lac de Guiers moo daanu kele euh, euh, day am victoire. Pikine ñaari mbër a fay bëre muy muy muy muy Boy ak Eumeu Sène kenn ku ci nekk am na ku ngay bëreel ki nga bëreel kii Guédiawaye la dëkk kii Parcelles waaye pikin benn victoire la ñu am ci combat boobu. waaw ñaata victoire la am ci combat yi. du ma wax Parcelles du wax <laughs> Guédiawaye nit ñi di préparer waat di wax nu nekk waaye en tout cas daal Pikine benn victoire la ñu am incha allahu rabbi. beneen victoire bi feneen lay beneen victoire bi feneen lay dem waaye Pikine du am ñaari victoire mukk. Mhm. kéemtaan la. mais mën nga ñu jox indication yi si combat bu njëkk bi la am victoire wala combat bu mujj bi. en tout cas combat bi li ma ci wax. nit ah. dinañ ma owaa téléphone laajaan ma ko. combat bi nii nit benn victoire mooy am biir pikin te bu combat bi jege see naa leen wax kan mooy daan. léegi man dama gën a bëgg ñu gën a leeral. mbir yi mhm. euh, roi des arènes. Mhm. ndax dina yàgg ci am seen wala du ci yàgg. gëmoo mu yàgg ci. gëmoo mu yàgg ci Eumeu Sène. Mhm, gëmoo mu yàgg ci. mën na ca def ay at ay weer wala at. ay at moom du ci am. Ah. du bàyyi bëre ak combat roi des arènes te du gëw ma mu yàgg ci. léegi tey foog mbir yi <laughs> orientation yi leer mais Boy Niang ak euh, Lac de daan na def attention bu baax a baax wala mu jugaat bu baax a baax. en tout cas Boy Niang moo gën a pare Lac de jamono jii ñu toll ci mystiquement bu baax a baax ci wàllu sarax bu baax a baax ci wàllu sax jaamu yàlla ndax mbëri dañoo foog ne affaire yi dem entraînement kese la waaye guddi yi ñu toll Boy Niang li muy euh, li muy jaamu yàlla sax Lac de Guiers jaamu ko yàlla. ah. kon xërëm yu la gën a bëri. du xërëm waaye ñaan yàlla la. waaw moo tax la ndax xërëm yëpp la gën a bëri parce que xërëm ma lay gën a te te yàlla yu mel noonu. en tout su fekkee wàllu jaamu yàlla laay wax Boy Niang guddi yu mu toll moo gën a jaamu yàlla Lac de Guiers. Cheikh ndax yow Boy Niang seet si mel ni Boy Niang jaar na fi. non seet wu ma. Hmm. xaw ma ko xaw ma ay mbokkam mm-hmm. waaye li ñuy wax daal moo ñuy wax ñuy wax te bës bu ñu waxatul tamit bës bu ñu waxatul tamit duñ génn wax waaye en tout cas jamono ji ñu toll daal Pikine benn victoire la ñuy am cheikh bi ndax xam nga damay xaw a lenn saa yi ci xaw a tiit booy wax parce que mm-hmm. dañu yàgg wax yu nga xamante ni dañ ko gis te ni nga ko waxee nii te wax ne virgule lu ci changé loolu day xaw a léegi saa yi jaxase xelu euh, waa Pikine yi benn victoire dañuy am te xamaguñu fan la féetee xam naa buñ gën a jege si dinañ fi ñëw mais eh, ndax benn mbër mos na fi ñëw nga jëflante ak moom. waaw jëflante naag ay mbër jëflante naag ay mbër yu bëree bëri du benn du ñaar du ñett. Mm-hmm. waaye rafetut ñuy wax ne ñii lañ jëflanteel waaye mbër yu ñu jëflanteel bëri na lool sax lool sax. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoo ñoo mu demee woon seen i am na ñu nga xamante ni sant nañ ci yàlla yàlla may na leen ndam. alors Cheikh bi comme ginnaaw ba génn nañu ba léegi ñu ngi ci sport mais suñu national équipe bi suñu équipe nationale bi. waaw équipe lan mooy gàllankoor yi Cheikh. bi doy na waar lool. Hmm. bëri na nag sëriñ si nga xamante ne ñu ngi génn di wax ci équipe national bi. Hmm. ne dañ leen di xeex dafa dafa bëri ay nangam ak dafa bëri ay nangam loolu yëpp dëgg la. Hmm. waaye équipe national bi ñoom seen jëmi bopp. ñoom ñooy xeexante. nekku nit ñi ñoo génn di xeex déedéet ñoom seen jëmi bopp ñoom ñooy xeexante seen biir. ñooy xeexante seen biir kon mbir seen biir la génnul seen biir. ñoom seen jëm boobu nan la xamante ni xeexante boobu dina jeex. lenn daal mun naa ko mun naa mun naa mun naa kaa wax loo xamante ni baax na ci équipe nationale bi képp ku ko mën a def tamit nga def ko. Mm-hmm. mooy ñuy saraxe ndox. su marché bi ji jotee. Mm-hmm. suñ mënee saraxe 10 litres ndox yi du ma wax ban ndox la nag 10 litres ndox yi ku ko mën a génnee. Mm-hmm. maanaam 21 10 litres. Mm-hmm. nga génnee ko saraxe ko. baax na ci équipe bi tant que ñu ngi koy def yàlla mun na leen a may ndam. Cheikh bi xam naa ni waxtu bi moom dab nañu émission bi daanaka jeex na tàkk mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi lay topp amaana ñu ngi xaar parce que say digle yenn saa yi dañ koy soxla. tey lan mooy nekk yóbbal bis bi lan mooy nekk. waaw damay ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngiy seetaan. Mhm. ak fépp foo nekk baa ngi lay ñaanal yàlla may la jàmm. ndax lépp jàmm la. Mhm. soo amul jàmm yu bëri doo ko tal. Mhm. maa ngi lay ñaanal yàlla loxom bu gudd gudd na lool mu fekk la fa dimbale la. aajo bi nga am yàlla na yàlla fekk foofu faj sa aajo. ci barke yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaan yàlla su ma soñoon kenn du am jafe-jafe waaye jafe-jafe mënut a ñàkk ndax jalaal ak jamaal ñoo ànd mm. waaye képp ko nga xamante ne am na jalaal yàlla na ko yàlla dimbale mu muñ ko te yàlla na ko yàlla teggil indil ko jamaal bi sedd guy si kàttun yàlla ak mbaaxam maa ngi ñaanal ñëpp jàmm mm. jërëjëf mbokk mi nga xamante ni moom la ñu seet si woon tey di Cheikh Adi Deme ñu xàmmee ko bu baax ci xam-xam bu sell bi ak wax ji nga xamante ni moom la koy wax ak àll borom euh, li jaaba bi nga xamante ni yàlla daf ko may nag bu baax ci kurus ak ñaan yàlla euh, néew na mu ñaanal nit xamante ni lam la ñaanal gi doo ko gis euh, mbokk bi ñu lay ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram yàlla di la defal it jàmm ak xewal mais ñu bàyyi la rek nga tàggoog mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan am na loo bëgg yokk ci waxtaan wi di sant ñëpp di mm. ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama sëriñ bu baax a baax. ndax mm-hmm. wax dëgg yàlla bu lëkk lekkee olom na ko gërëmee coy. Mm-hmm. waaw kon dama koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax aw ma fayam. ndax lépp lu nga xamante lépp lu ma mel. Mm-hmm. bu nit ñi di ma dem bay tàllal loxo di ma ñaanloo yàlla ma leen di ñaanal. mbaaxam la moo ko def ci man. jéggaanewu ma fenn dew ma fenn lépp lu ma am ci tànkam laa ko roote nit ñi dañuy wax naan dem naa dëkk sàngam dem naa dëkk sàng waaye man sama ron sëriñ te sëriñ laa nekk lépp lu nekk ci man moo ma ko defal à part moom samay ñoo def ci man lu ñu def ci man may ko fan wu gudd lool bu ànd ak wér gu te fépp fu ma toog maa ngi koy ñaanal yàlla mu yëg ko ak mu ñàkk ko yëg. Mm. Mm-hmm. jërëjëf Cheikh Adi Deme ci xam-xam bu sell beeg ñaan yooyu yàlla na yàlla nangu yow ñu lay ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram yàlla bàyyi la fi ngay jëflanteeg askan wi yàlla it di la ci may ndam bu baax mbokk yi xarit yi numéro téléphone yu Cheikh Adi Deme yaa ngi noonu ngeen di gis si baaru écran bi di 77 si 361 02 75 Cheikh bi ñu lay ñaanal fan wu gudd ak wér ci dalal nga xamante ni daal na ñu oh, ndonte jafe woon nga la ndax yittey jaam yi nga xamante ni moom nga nekk jërë ngeen jëf